marché Ocass bu Touba tëjandi nañ ko ay fan loolu nag doon dogal loo xam ne kilifa yi nekk ci département bu Mbacké ñoo ko jël ngir xeex jàngoro jàngoroy Covid 19. muy mbir moo xam ne nag commercant yi nekk ci marché Ocass bu Touba ñoom ànd nañ ci waaye rek di yuuxu wall di woo préfet bu Mbacké ngir mu taxaw ci kaaraangeeg boobu la marché ci jamonoy bëccëg gi. dañuy wax def nañ ko muy kilifa li santaane muy préfet sous préfet commissaire docteur Dieng ak capitaine euh, service d'hygiène dañ nañu woon nan tëj marché bi pendant trois jours kenn duñu fee jaar ñu ni ñu ni ñu ni nan fexe ba ñu ñu ni leen nan fexe ba kon sécurité marché bi muy bëccëg gi nan ñu fee ne élément de police yi doy sëkk angle bu nekk am deux éléments minimum mais bi xëysee xool marché bi kenn commerçant yi toog seen kër kenn xëysiwul la ca mooy élément de police ñoo ñëwul ci marché pour surveiller ndax ñu ngi déparé koñ bële koñ bu ñu kenn ko fa taxaw kenn ñoom yooyu les commerçant nag ñi ngi fàttali ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi lu jëm ci kaaraange ak marché bi moom ci bëccëg gi ñoom la war bu fekkente ne guddi gi moom kaaraange gi ñu ngi koy saytul seen bopp ñoom yooyu les commerçant parce que sécurité bi bëccëg gi mooy nit ñaa ngi di dèjà centre commercial ay roq yi ndaw la bu nit boroxandoo dugg ci biir centre bi toj ubbi fa benn place kan mooy responsable asi asi asi mooy section section Touba ñu bëgg bëccëg ñoo ngi sécurité bu doy sëkk nit ki nag boo ko toogloo ci këram yaa ngi gardé la mu bàyyi ca marché ba mais faa nga bàyyi ko mu tëdd kër kenn gardé wu. ñoom liggéeykat yi nekkee ci marché Ocass bu Touba nag di wax ne dàqu ñu benn yoon dem ba ca préfet bu Mbacké leeral ko jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkoonteel lu ci mën da am nag ñi ngi xaar saasu ne ngir ñu bale pompe seen marché boobu nga xam ne fa la ñu xëy saasu ne di lu ñu am. lu jubluwaat dinañ dem ànd ak moom ba ci préfet di ko ànd la nga waxoon def nañ ko mais li ñoom sant defuñu ko. ndax sécurité ñoom ñoom ñoo ko yore mbale mi tam dañ ne woon bu tëjee la war a bi dëgg-dëgg sax ñoom dañ ne dañuy na suba lay commencé parce que trois jours la ñu wax mais damaa jàpp ne boo tëj boo tëjloo nit ñi ne da ngay balee la bale ah, pompe moom la gën a mooy trois jours ci gënoon comme ni nga ko tënkee ndax bi ñu demee si mbas si mbas ndax mu ni deux jours mënoo ca bale pomp ko kon deux jours doyul kon li leen tàmbal li leen te tàmbal tey war war nañu koo leeral. ci jamono bu commerçant yu mag yi di yuuxu kaaraangeeg marché bi ci bëccëg gi ñi xam ne ñoo di marchand ambulant yi moom di wax ne tiit nañ lool ci seen ëllëg li ko waral nag ñu ne mooy marché bi nga xam ne ci lañ daan xëy diwut lu ñu am ay fan danañ toog duñ fa teg seen tànk. ñun marchand ambulant yi nga xamante ni liy jaay fii ci marchand ambulant yi bu ma leen xaymaa man 2000 personnes ëpp nañ ko ñaari junniy doomu aadama. am na ci ñoo xam ne ay ay néew ji doole lañ am na ci ñoo xamante ni seen i borom kër dafa faatu ñu yor kër ga di ay jigéen di jaay fii ab junni bi ñuy dépassé fii lañ koy wut deux mille yi ñuy dépassé fii lañ koy wut kon ku leen tëj bàyyi leen ñu dem seen kër toog rawatina weeru koor gi ñuy séntu am na ci ñoo xam ne wallahi alazim amuñu lu ñu xëy amuñu lu ñu joxe seen kër naam dëgg la feebar bee tax ñu moy ñuy moytandiku loole waaye day am na ci loo xam ne mi ngi jur loo xam ne mooy ab xiif dana rey ñu bari coronavirus nag tax ñu tëj marché Ocass bu Touba commercant yu mag yi di sàkku ci kilifa yi ngir ñu taxaw ci kaaraange ak marché bi ci jamono ba bëccëg gi ci boobu la jamono ñi nga xam ne ñoo di marchand ambulant yi tiit lool ci seen ëllëg jàpp ne fan yi moom dañ am jafe-jafe lool ngir lu ñu yóbbu ci seeni kër